bi ñu ngi lay. naa la. ñu xool caméra bi rek nga baal ñu. Euh, si diggante combat Papa Sow ak Siteu nar a am le 6 novembre fële si arène nationale kan nga jàpp ne mooy daan. téeméeri combat Papa Sow dina toog ci dënn bi Papa saw dina ko dóor dina ko duma dina ko daan maa la ko wax ragal péete day xañ a wërsëg. waaw loolu yomb na nu ko waxee yomb na mais dafa am ni ma ko waxee loolu am non am da koy duma da koy daan toog ci dënn bi waaw Papa Sow waaw d'accord. wax leen lu leen neex wax leen lu leen neex waaw waaw wax lu leen neex combat buñ ko tëggoon xoolal combat bi buñ ko tëggoon père jege si lekk père jege si lekk père waaw kay père may na la nga sol sol ba naaj defar ba naaj nga ñëw ñëwal dama ne la borom jon waar borom parcelle la fi taxaw di ko xaar borom parcelle la ngi taxaw di ko xaar dina ko duma dina ko daan allahu akbar may ma tuuti ma ñëw ko duma dina ko daan ba toog ci mu ñëw asalaamaaleykum. ku baax naa def. tur bi naka la. Maysa Faye. di goro Siteu. Siteu yaayam rakk yaayam mooy sama soxna muy Ulay Senghor mu baax mi dëkk Jonwaar. loolu mbokk la mbokk la. maam ay doom yóbbu leen Jonwaar ñu jàng école baam lijaa Lidiasa. Siteu doomu day Ousmane Senghor ak Baye Senghor ma ca Jonwaar Siteu dina ko dóor dina ko daan ci kàttanu yàlla ndax boo duggee Jonwaar rek xam ne ay garmi pire fa dëkk. ba wàcce jifir du nuyu Maama Laasana ci bitik bi dugg gaal bi wàcce wàcce jonwaar nga xam ne Siteu du kenn kenn du Siteu am na yar am na teggin bëgg na ay mbokkam ba ay mbokkam bëgg nañ ko mu juddoo jonwaar nag màggoo jonwaar yoroo jonwaar ñëw nag jàmm gën ànd ak waa jàmm gën nag nekk ci làmb ji muy gor pire di taalibe di taalibe Seex Ibra di Baay Fall piir nag kan la bokkal Ousmane Senghor mu jonwaar kan la bokkal askanuñu kan la bokkal Baye Senghor bu Dionewar dañ koy duma dañ koy daal ba tëdd ci kaw dënnam dina daan Tapha Sow jël bu set wecc askan ak ay ñii ay yooyu du loolu man dima la ko parcelle bi da koy téye la ko wax duma ko toog ci dënnam ma ne da koy duma téye ko toog ci dënnam man may sa fay mi nga xam ne nii affaire du ay lambiso de téeméeri combat dañ koy daan def nank dañ koy duma dañ koy daan ma ne dem ci lamb ji bi bàkku jóge ci lamb ji bàkku moo gën teel nga bàkku sa way xañu war sëkk teel nga bàkku de teel nga bàkku de bëre naa gone ma ne jon war na de mag bëre naa ku na de waa jon du jon de waa jon waar du ñëw bu ñu sumee ba takk ngeen nga xam ne séeréer am jom dama ne la nga xam ne séeréer am jom pol ci jom la fekk baax xam nga naa ma séeréer mañu dinañ waa dag may ko duma dinañ ko daan ba toog ci tënnam waa waxal ma déglul si ma déglul xam séeréer. waaw. tukulóor diggante Siteu tukulóor la ak séeréer. Siteu Senghor. waaw. doomu nday nga de Papa Sow Sow pour le jéeri borom naka ak mee yooyu waaw da ngay déglu xam nga xam nga waxtaan bala muy neex ñuy déglante xam nga waxtaan bala muy neex ñuy déglante waaw da nga may déglu euh, si Malick yow Alaaji Abdoulaye Dabax mooy sa maam yow gar piir nga waaye nag dama ne xam nga leen lan la xam nga doon na doon na du cinquante cinquante de cinquante presque vingt cinq la ñun ñoo ñun waa ñoo am cinquante yéen nga am vingt cinq. kan du cinquante cinquante cinquante vingt cinq la cinquante vingt cinq la dinaa la duma naal daan dinaa la duma naal daan. Cité Senghor nga xam ne nii boo ñëwee ba ci biir fi mu la ñoo joor kenn du ñëw ñoo ñëpp kenn du ñëw ñoo joor ñoo ñëpp fa joor waar ñëpp a ñëw kenn du ñëw kenn du ñëw bu soobee yàlla ñoo ñëpp kenn du ñëw ñoo ko duma dina ko daan wér gi yaram ci kattanu yàlla dina ko duma dina ci kattanu yàlla ñëwal dafa sonn dama ko ñaanal wér gi yaram ak fekk ci barke yuntu sallallahu alayhi wasallam yaa dégg yàlla Sénégal Sénégal yéen ñun ñëpp ñoo bokk ndaw ñoo bokk bàyyi dañuy ñaan yàlla jàmm ñu dugg ci bismillahi rahmaani ngeen ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu bëgg nag no violence ci diggante waaw non violence ndax xam nga xam nga Sénégal xam nga lu ko yàq raaxaloo bi ñiy yàq ak supporter duñu benn ñiy yàq ak supporter duñu benn dafa am ñoo xam dañu ñëw pour yàq am ñoo xam dañu ñëw pour defar loolu nag mooy àdduna mais nag ñiy yàq na day ñaan yàlla ñu xool ci ñiy defar ndax mbooloo mooy doole diggante tukulóor ak séeréer lu waay def sa bopp ci lu lu waay def sa morom ci lu ñaaw rek da koy gis waaw da koy gis kon man noonu ànd bokk ndey bokk baay bu boobaa ñu sangu ba set solu ba rafet dem làmb ja c'est le meilleur que gagne yal na yàlla doon suturam waa joon waar nag maa leen di nuyu gërëm ndax yéen a ma xam ne nii mooy sama mooy sama càppoo ci li Ouleye Senghor nga xam ne nii doomu doomu doomu Abdou ak Sophie Sophie Sarr da yaa ngi dëkk dëkk see dëkk man dag may déglu rek dama am naa droit woo samay goro dama ne yéen waa joon waar andi leen bokk ndey bokk baay ah. jàppaleen seen doom te nga ko da jàppaleen démb ak barki démb ak tey Ouleye Senghor doomu yaay Mouhamadou Moustapha yaa Dior war na gërëm ñaa ñëpp sant naa ñëpp jërë ngeen jëf ah, non violence la ñuy wootee surtout ñun parcelle ku ne xam na ni ñun non violence ci la ñuy demee ñun du ñu yàq làmb du ñu birwi du ñu tëgg simol du ñu waaw yaa ma gën a xam du ñu fàqat du ñu def dara dañoo bëgg bi su làmb ja ñu sañse ba rafet sol lu rafet xeeñ lu neex ah. ñëw ci heure ah. ci kattanu yàlla ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam defet fan lañ koy jële fan lañ koy jëlee Papa Sow dina dóor Siteu dina ko daan toog ci dënn bi ci barki Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah li mooy Sénégal gis nga digg combat boobu diggante euh, maanaam tukulóor la ak séeréer gis nga papa sama papa tuk séeréer la saa tukulóor la man sama papa séeréer sama yaay la fa laa war a far ah, sa moom problème loolay war a Sénégal benn bopp la kenn waaw kay damay tax digg Sénégal ah, benn bopp la kenn mënu ko mbokk internet rendez le 6 novembre incha allah fële sa arène si diggante Papa Sow ak kii di Siteu waaw lu la métti kaay fii doo métti tëjaguma jërëjëf père jërëjëf père kay Saare dafa am lu ko métti. la moo la métti ñoo ngi dañuy jaar tur bi naka la. man Ibrahima Ndiaye laa tudd. la moo la métti. li ma gën a métti mooy damaa dagg seen combat bi passé nii sama 6000 francs laa dagg. Siteu nag kat combat dimanche bi wala samedi. mooy combat Siteu beeg Papa Sow mooy boobu ñu yàq. waaw moom njëkk a métti ñoom ñaar ñëpp kenn nekkul sama mbër waaye lu ñu ko deful en direct moo tax dem stade parce sama 6000 ba pare seetaan ma lu ma neex man loolu moo ma metti nañ ko eggali combat ci moom bis bu ñu ko tegee ci moom da war a bëre si fulla ak si fayda kéeméer gañ waaw yaa ma gën a xam man Pikine laa dëkk man képp saxu Pikine sax buy bëre sax moom laay faral man ñoom ñoom sama lépp waaw ñoom ñoom kéeméer gañ quoi 50 cinquante la lu gars yi olof Ndiaye wax rek waaw kéeméer gañ. merci beaucoup internet Wassare TV amul dara lu ñuy bàyyi Diop def pat let's go. mbokki Sénégal mbokki amateur yi mbokki làmb le 6 novembre ñu nga jëm ci arène nationale ci combat de clarification ci combat revanche ci combat bu décisif ci diggante Papa Sow ak Siteu ma ne ku osé def li ni mel ñu ne jàmbaar production ndax làmb dafa ne combat ba fi amoon daaw verdict bi la ñuy xaar ba tey te faaw mu war a leer ci diggante Siteu ak Papa Sow jàmbaar wrestling production ne maa ngi nii maay ki koy leeral maay kiy départager diggante ñaari mbër yi maay fexe ba ma leen ko waxee war ngeen sañ ba réer ma ne wallaay dëgg la kon mbokki amateur yi combat de clarification baa ngook ndax Papa Sow dafa ne juróom-ñeenti at a ngi nii may wër victoire mu tëma tëcc rax ca dolli ma jógee faa samp sama yëfi bopp muy jàmbaar wrestling academy rax ca dolli ma may xale sens kon le 6 kenn mënumaa tere dégg félicitation ba tax na fu sama adversaire nekk danaa ko fa fekk lu combat bi laaj danaa ko def si te ne ko maa féete ndaw maa soxla porte VIP yi fëgg naa ko sottiwut ma jaare ko ci yow te ma ko fëggaatee dana ubbeku ndax la ñuy xaar ngir dégg des arènes kon le 6 novembre la ñuy def ca làmb ja ko fay def ñu ne ah mbokki amateurs kon bés a ngoog jàmbaar ne dama cee toftal nag combat yoo xam ne boo ci jël mat na grand combat ca spécial ba diggante anaconda ak caatu ngéwél loolu toq su bënn la saañ ba réer goreel dana fa jàkkaarloog Ziza fils de Samsam dana jàkkaarloog Potilo Mbàkke fay jàkkaarloog Sàqal 2 caatu Piyol jàkkaarloog Boy Notaire ñang baalu ak Ceer Guy gi Moussa Dioum numéro 2 ak Max Mbergan numéro 2 Papa Samber ak Souley Gaynde premier combat ba bu parcelle ak farba bu benn barak ma yi jàmbaar production moo jox rendez-vous le 6 novembre ci arène nationale ci combat soog combat de clarification ñu ànd ceeg seen partenaire officiel Nice and Sick by Pulla bu may ba partenaire bi nga xam ne ku mu àndal nga am ndam ku mu àndal nga def différence ndax ñoom ci différence rek lañu leen xam.